الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
الله asalaamaaleykum yéen mbokki auditeurs yi ñu tàmm di déglu ci suñu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi cant ak ngërëm ñeel na yàlla sunu borom moom mi nga xam ne moo ñuy taxawu saa su ne mooy ànd ak ñun bés bu ne ci waxtu yu ne ci simili yu nekk di yor loxoom ci suñu biir dund ba lépp li nga xam ne yittewoo nañu ko ci lu baax ci lu sell ci lu jara naw ñu koy jotee ci moom kon ñu ngi koy jiital ci nuyoo yi di ko gërëm di ko sant moom yàlla sunu borom di te- teg suñuy ñaari waajur di leen gërëm di leen sant bu baax a baax ci li yàlla def ci suñu dund jaarale ko ci ñoom ginnaaw loolu yéen mbokk auditeurs yi ñu ngi nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan rek yàlla wéy di wàccee jàmm ak tawféex ci dund kenn ku nekk ci ñun ci njaboot yu ne noonu mu mën a wasaaroo ci biir réew mii nga xam ne mooy Sénégal kon yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy déglu ci suñu émission bi ñu dippee kàddu gu sell gi dellu si waat nañu tey ji ci kàttanug yàlla sunu borom ngir wéyale ak yéen waxtaan yi nga xam ne moom la ñu tàmm di waxtaan ak yéen te ñu koy tibbee ci kàddu gu sell gi muy bible bi di kàddug yàlla sunu borom te lépp di njëriñ lépp di leer ngir gindik doomu aadama bi ci àddina si ñu nekk ndaxte nag yàlla sunu borom mooy wax ni àddina si nga xam ne ñun ñu ngi ci te bàkkaar yóbbee ñu ko lëndëm kese la bu dul kàddug yàlla mënuñu niitu bu dul kàddug yàlla mënuñu am leer ba xam fan la ñuy teg ci suñu fan la ñuy teg suñu tànk te teg tànk boobu mën a méngoo ak bëgg-bëggu yàlla yu sell yi kon yéen doomu aadama yi nga xam ne yàlla baaxe na leen ba tey jii ngeen ñuy dégluwaat ma bëgg a dellu si jàng ak yéen ay aaya ci téere bu sell bi te aaya yooyu nag di ñu andil nettali boo xam ni bu am solo la te ñu mën ci jàngee ay mbir yoo xam ne ba suñu jëmu jamono ji mu ngi ci àddina si di andil doomu aadama yi ay jafe-jafe su ma ñëwee ci téere wu njalbéen nga muy téere bu njëkk ci téere bu sell bi ma xaaj bu njëkk bi ñuy woowee kóllëre gu njëkk bi wala ancien testament ci ñi nga xam ne tur boobu lañ ko gën a xamee dinañu jàng ci njalbéen nga saar ñeent li ko dalee aaya benn ba aaya juróom-ñett lii la ci suñu boroom di wax mu ne gannaaw loolu aadama ànd ak awa jabaram mu ëmb jur kayin mu ne am naa doom ju góor ci ndimbalug yàlla aji sax ji awa teg ca abel rakkam abel di sàmm kayin di béy gannaaw ay jamono kayin jël ci li mu béy jébbal ko aji sax ji ngir màggal ko abel moom jébbal aji sax ji ay ci géttam ya ca njëkk a juddu te gën caa duuf te aji sax ji nangul abel waaye nangulul kayin kayin nag daldi mer lool ba xar kanamam bi lëndëm aji sax ji ne kayin lu tax nga mer lu tax sa xar kanam lëndëm soo defee lu baax sa xar kanam dina leer soo deful lu baax bàkkaar a ngi ci sa bunt te dina la teeru ni rab di la wut waaye yow noot ko noonu kayin wax ak abel rakkam bi mu nekkee ca tool ya kayin daanu ci kaw abel rakkam rey ko ñu yem fii ci ci ci ci ci ci ci aaya yi lii la téere bu sell bi andi ci waxtaan boobu kon ñu gis ni aadama ak awa ginnaaw bi ñu bàkkaare maanaam bi ñu tooñee yàlla sunu borom ca tool bu ba nga xam ne fa la leen dugaloon te ñu gën ko xamee ci turug àjjana téere bu sell bi di ñu wax ni yàlla dafa leen génne woon ca bërëb booba muy àjjana daldi ko tëj teg fa ay malaaka ñu koy saytu noonu mu wàccee leen ci kaw suuf mu ne leen léegi nag suufa ngoog béy leen ko ci seen ñax ngeen di tedde waaye dina leen andil ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi tukkee ci bàkkaar bi nga xam ne ci ngeen bàkkaar daanu waaye aadama ak awa dafa am ndigal bu leen yàlla joxoon bi ñu nekkee ci tool ba maanaam ca àjjana laata ñuy bàkkaar ndigal boobu mooy lan yàlla dafa leen waxoon ni giir leen jur leen te bëri fees leen suuf si te noot ko loolu ndigal la boo xam ni yàlla daf ko joxoon aadama ak awa kon bëggul woon rek ñi mu bind nit ñi yem ci aadama ak awa waaye dafa bëggoon aadama ak awa jur ay doom doom yooyu am ay doom ñooñu am ay doom ñuy gën di bëri ci suuf si ngir mën a noot ngir mën a yor lépp loo xam ni yàlla daf ko sàkk te doomu aadama taxoon mu sàkk ko ndigal boobu mu leen joxoon ci tool bi nag deñul mu ngi fi ba léegi mu ngi fi moo tax bi ñu génnee tool bi it aadama jote ak jabaram hawa ëmb génn ci mu jur doom ju góor ngeen dégg mu ne maa ngi sant maa ngi màggal yàlla sama borom ndax am naa doom ju góor ci ndimbalam waaw ci ndimbalug yàlla la aadama ak awa amee doom ju góor waaye day dugg tamit ci mission bi nga xam ni moom la leen yàlla dénkoon maanaam ñu giir jur ba mu bari ngir mën a noot suuf si noonu téere bi nañu yàlla sunu borom mayaat leen beneen doom bu góor muy abel kon ñu taawloo góor teg ca góor muy ñaari góor ñu dem ba giiru jamono ñam ñaar ñépp ku nekk am ca la muy yëngu maanaam métier soo bëggee ku nekk am ca la muy yëngu taaw bi di kayin nekk ab béykat rakk ji di abel nekk ab sàmmkat kon kii di toppatoo tuut toolam kii di toppatoo ay juram bi ñu demee ba jëmi jamono ñu màgg ñoom ñaar ñépp ñu ne ñu daldi dogu ñoom ñaar ñépp ne dañuy defal yàlla ab sarax waaw ngir màggal ko loolu la téere bu sell bi wax ba léegi jafe-jafe amul parce que doomu aadama bi bu ko yàlla mayee mu juddu gane si àddina yàlla di ko toppatoo muy màgg di màgg ba doon nit ba doon mag mu am ca la muy yëngu mu am métier ba muy yëngu yoon la mu jël ca la nga xam ne ca lay yëngu ngir delloo yàlla njukkeel ngir màggal yàlla ngir woon yàlla ne ko kat dëgg-dëgg fàttewuma munuma fàtte ni lam li ma doon li ma man li ma am lépp yow a loolu la Abel ak Kayin ne dañ koy def ñu ne ñu Kayin mi nga xam ne mooy taaw bi te mu doonoon ab béykat te béy nag wax dëgg fa yàlla mbokk yi muy muy métier bu ama ama am solo muy métier bu ama am solo nitu yàlla yu mag yi yonent yàlla yi ñu bari jaar nañu ci métier boobu moo xam béy la moo xam sàmm la liggéey la boo xam ni yàlla daf ko barkeel bu baax a baax a baax sax yàlla daf ko barkeel bu baax a baax kon ñoom ñaar ñépp yëngatu nañu ci métier léegi dogu nañu jël ci seen liggéey boobu loo xam ne dañu koy màggale yàlla léegi nag nan lay demee nan lañ koy defee nan la ko yàlla di gisee nettali bi ci loolu lay wéy kon mbokk yi dinañu déglu tuuti cant ñu soog a dellu si ci li ci des jërëjëf
Hunranana donayin rialet zomishenu نكدم عفنا بتدرى بزيرت غرير كيل جدول أدوناي وملك جدول لكل אלוהים אבל אני מזמן את פי להודות ולהלל
jërëjëf kocc suñu technicien bu baax boobu yàlla na ko yàlla barkeel ñu wéy ci waxtaan bi mbokk yi ah ñu wéy ci waxtaan bi ah téere bu sell bi nañu ñoom ñaar ñépp jébbal nañu yàlla seeni sarax waaye yàlla sunu boroom nangu saraxu abel muy rakk bi waaye nanguwul saraxu kayin muy mag ji loolu lañu téere bi wax rakka ji saraxe na mag ji saraxe na mag ji jël na ca la mu béy ca tool ya mu jébbal ko yàlla rakk ji jël na ci ay juróom ya ca gën a duuf mu jébbal ko yàlla yàlla nangu na saraxu abel rakk ji waaye nanguwul saraxu kayin mag ji lan moo tax aaya yi ñu jàng téere bii ñu sukkandiku waxu ci dara ndaxte nag yàlla sunu borom ah, amul lenn loo xam ne wareef la ci moom ngir mu ñuy wax lu tax mu def lii ak lu tax deful lii du wareef ci moom waaw na ko yàlla waaj a waxee woon Dieu n'est pas obligé waaw du wareef ci moom da koy neex rek mu wax ñu lan moo tax mu jëfee ni wala lan moo tax mu demee ni waaye du wareef ci moom waaye bu ñu demee ci téere bi ñu xuus ba ci biir am na ci téere bu sell bi benn téere bu ñuy woowee yawut ya te yàlla sunu borom wax ci ak ñun na dam ñu ciy wax daal mooy na ngëm a tax abel saraxe sarax boo xam ne bu neex yàlla la te yàlla nangul ko saraxam loolu la ñu téere boobu di wax téerewu yawut ya saar fukk ak benn aaya ñeent waaw ngëm a tax ndax loolu day junju ni kayin ngëm sarax ba mu jox yàlla àndul woon a ngëm yàlla rek a xam ndax day junju ni yàlla waxoon na leen nañ ko war a joxe sarax nañu na mu ko bëggee waaye kayin dëgër bopp dem defee ko na mu ko bëggee yàlla rek a xam téere bi daal nee nañu ngëm a tax kabe abel saraxal yàlla sarax su mucc ayib te yàlla nangul ko ko kon ñu jàngee ci ni baax na daal doomu aadama bi lépp lu muy def ngir yàlla ngistal bañ ko cee topp lépp lu muy def ngir yàlla toppandoo bañ ko cee dugal waaye ngëm bu dëgër kóolute bu dëgër am xol boo xam ne dafa bëgg a delloo yàlla njukkeel tax ñuy def ngir yàlla waaye xam ngeen réew mii ñu nekk Sénégal laata nit ñi di mën a wax am yàlla jox la rek fekk mbooloo mu bari topp boobu xaw ma ndax ànd naa ngëm wala àndu la ngëm waaye li ma xam daal mooy ne du ni ko yàlla bëggee léegi nag yàlla nangu na saraxu kay abel te nanguwul bu kayin kayin nag daal di am jafe-jafe xam ngeen jafe-jafewu kayin fi mu tàmbale mooy dafa tàmbale méngale àddina bii ñu nekk lu fi yàq lu ne méngale ngi ci méngale na boppam ak abel mu daal di gis ni moom mooy mag moom mooy taaw abel mooy rakk kon lépp lu ñu dugg mook abel moom moo ca war a jiitu jaaduwul abel di ko jiitu noonu la ko gisee moom waaw noonu la ko gisee moom mooy mag moom mooy taaw kon moom amul waruñu mën a def dara ndax abel jiitu ko kon ñu gis ni moom même ci sarax si nga xam ni sax nee na yàlla la ko doon jébbal dugal na ci jongante compétition ni ko tubaab bi waxe dugal na ci jongante waaw mu ngi jogante ak abel pour xool moom la saraxam war a gën a baax lu tax ndaxte moom mooy mag bi moom mooy taaw bi moom moo gën a am xel moom moo gën a rafet moom moo gën a njool moom moo ëpp xam-xam kon normalul yàlla di nangu bosu kii te nanguwul bosam nañu nañu nañu bàyyi mbokk yi di méngale suñu bopp ak ña ca des nañu bàyyi di méngale suñuy jëf ak ña ca des nañuy bàyyi di méngale suñu xam-xam ak ña ca des nañuy bàyyi di méngale suñu man-man ak ña ca des ndaxte lu mu ci manta doon nag yàlla la xam-xam bi ngay bàkkoo di ko méngaleeg ña ca des ba xalaat ne yaa leen ëpp xam-xam ba xalaat ne boo jongantee ak ñoom waruñu laa mën a raw yàlla juddu bi ngay bàkkoo ba mën a ne man ci réew mii laa juddoo kii doxandeem la waru fee mën a ñëw ba am fi loo xam ne man manu aw waruma koo am boobu fàtte nga yàlla xanaa du yàlla mooy maye xanaa du yàlla mooy nangu xanaa du yàlla mooy joxe kayin loolu moo nekkoon jafe-jafeem bi mu méngalee mu daal di gis ni rakk ji raw na ko mu daal di gis ni ki mu xalaatoon ni moom moo ko ëpp xam-xam raw na ko mu daal di gis ni ka mu xalaatoon ni doxandeem la raw na ko mu xalaat ni daal di gis ni ka mu xalaatoon ni tekkiwul dara raw na ko ndaxte nag mbirum yàlla yi doomu aadama yi bu leen ci réeree mbir du du du xam-xam du man-man du gi du du du du bë- du bërile ndaxte loolu yàlla soxlawu ko la mu soxla mooy xol bi la mu soxla du la ngay joxe mais la tax nga joxe ko ak na nga ko joxe loolu la yàlla soxla téere bi nag nee na ngëm moo tax yàlla nangu saraxu abel te nanguwul bu kayil xam nga boo méngalee noonu rek day day am loo xam ni bàkkaar da koy tàmbalee andi ci sa biir xol day am luy juddu ci sa biir xol muy muy yëg-yëgu tora toroxtaange waaw muy yëg-yëgu toroxtaange tubaab bi di wax ni tu te sens humilié waaw da ngay yëg yëg-yëgu toroxtaange da ngay gis ni man man man munul nekk kii munu maa raw kii munul am lu ma amul kii munul dem fu ma demul kii munul yor lu ma yorul ma daf ma da ngay gis ni yow da nga ta ko tàmbalee tuuti dañ la tàmbalee toroxal baakaar a ngi togg de te la muy togg ñoragul waaw day ci ndugg rek la toll nag ndugg rek la toll la muy togg ñoragul waaye mu ngi bax waaw mu ngi bax loolu la ak Kay- a- abel ak kayen yëg waaw mu ngi bax gis nga boo méngalee nga gis ni yow yaa waroon a jiitu waaye jiitu woo comme ni ma ko waxee li muy jur ci sa biir xol mooy yëg-yëgu toroxtaange yëg-yëgu toroxtaange boobu day andi beneen yëg-yëg mooy ne lii warul nekk ça c'est pas normal lii warul nekk waaw te bu warul nekk bu nekkee kon da ngay gis ni loo xam ne la yow da nga ko war a jubanti yàlla moom pare ak mbiru ka- ak kayin ak ñi mel ni kayin bu ñu tolloo fii yàlla moom pare na ci seeni programme yàlla bokkatul lépp ñooma léegi waaw waaw lii il faut ma lijjanti ko ndaxte jubul dama ko war a jubanti li jub mooy ne man maa war a jiitu li jub mooy ne man maa war a nekk ci kanam waaw tiis daal di dugg ci xolam ndeysaan tiis daal di dugg ci xolam muy tristesse tiis daal di dugg ci xolam gis nga nag tiis bu duggee ci xolu doomu aadama day feeñ ci xar kanamam xar kanam bi daal di lëndëm ba képp ku ko gis rek xam ne kii am na jafe-jafe ku ko gis rek xam ne kii am na problème xar kanam bi daal di lëndëm moom mi nga xamoon ni amaana da daan ree da daan foo ak nit ñi léegi mu nekk ku tëju mu nekk koo xam ne boo ko gisee rek di nga xam ne kii am na jafe-jafe mbokk yi loolu baaxul nañu déglu tuuti cant ñu dellu si te tëj waxtaan bi
وكدوش صديقي صلو لنا حل بيع مكن حكمة ربنا نحو أن تنفيع زي خطو يجن علينا ועל כל ישראל אמן ختم لدبيت شمرين يلكي حسيتي بك אמר לאדוני, אדוני אתה, טובתי בלעליך. לקדושים אשר בארץ המה אדירים, כל חפצי בם. ירבו עצבותם, החרמן, פלסטית נזכה מדם, ובלסה את שמותם, אספתם.
jërëjëf ci cant yooyu nga xam ne jagleel nañ ko yàlla sunu borom di ñaan rek mu jëlee ci mbégte te nangul ñu ko euh, moom mi nga xam ni moo yelloo lépp loo xam ne cant la ak ngërëm la kon mbokk yi bu ñu wéyalee ci waxtaan bi nga xam ne ci la ñu nekkoon gis nañu ne tiis dugg na ci dundub ki nga xam ne mooy kayin xar kanamam daal ni na lëndëm noonu mer daal di ko man mu mer te kamu mere nag du kenn ku dul abel loolu la ñuy wax waaye man damay wax sax ni daa mere yàlla waaye comme munul jot ci yàlla comme munul ci yàlla dara mu daal di ko sempi ki nga xam ni mooy abel xam nga yooyu day am des fois nga nekk ci kër gi sa papa wax la lu la naxari wala sa yaay def la lu la naxari sa rakk romb la daal di la laal rek nga fëgg ko mbéj waaw parce que munaloo sa papa dara munoo dóor sa yaay kon mer boobu da nga koy simpi ki nga xam ne mooy sa rakk bi waaw kayin mer daal di ko dugg te gisul lenn lu dul faj mer boobu naka lay fajee mer boobu mooy mu dindi fi ki nga xam ni mooy abel ndaxte bu fi abel nekkatul moom rek a fay nekk te bu dee moom rek a fa nekk amaana bu àndee saraxam yàlla du am beneen man gis-gis lu dul nangu ko parce que benn sarax boobu lay doon loolu mooy gis-gisam waaye gis ngeen yàlla sunu boroom dafa bëgg doomu aadama yàlla sunu borom ak nu sa tiis mënta toll ak nu sa mer mënta toll ak nu sa bàkkaar mënta rëy mbëggeelug yàlla du soppeeku ci yow yàlla daf la bëgg bëgg boobu yàlla bëgg doomu aadama moo tax mu teel a gàttandu ki nga xam ni mooy kayin gis ngeen aaya juróom benn aji sax ji ne kayin lu tax nga mer lu tax sa xar kanam lëndëm lu la lu tax nga mer yow kayin lu tax sa xar kanam lëndëm yow kayin lan mooy sa jafe-jafe soo defee lu baax sa xar kanam dina leer soo deful lu baax bàkkaar a ngi ci sa bunt te di la teeru nip rab di la wut waaye yow noot ko dégg ngeen aji sax ji artu na kayin ne lan moo fi jar mer lan moo fi jar xar kanam bu lëndëm danga ñëwoon ngir defal ma sarax nanguwuma sarax bi mais soppil ni nga ko defee nga jébbalee ma ko ni ma ko bëggee bu boobaa dinaa ci bëgg te bu ma bëggee nga bëgg boo bëggee sa xar kanam day day leer lan mooy sa problème defal ni Abel def waaw toppandool Abel copiyel ci Abel lu baax dañ koy toppandoo yàlla dafa baax mu ne damaa bëgg ngeen baax ni man yàlla aji mbëggeel la mu ne damaa bëgg ngeen am mbëggeel ni man lu baax dañ koy toppandoo dañ koy toppandoo xoolal ni abel defee nga defee noonu bu boobaa dinaa nangu sa sarax ndaxte day méngoog bu abel te bu abel moo méngoog sama bëgg-bëgg bu boobaa ma bëgg ci yow yow nga bëgg sa xar kanam daal di leer waaye boo toppul samay ndigal say xamal ni bàkkaar mu ngi tëdd ci sa buntu xol mel ni rabu àll buy wut ku mu lekk te dina la yóbbu loolu la ko yàlla wax yàlla nag comme ni ma ko waxee wax na ko ci ci ci gémmiñu yonent yàlla bu mag boobu ñuy wax Ézéchiel sama bëgg-bëgg du bàkkaarkat bi dee waaye sama bëgg-bëgg mooy mu tuub ay bàkkaaram dellu si ci man ba mu mën a dund loolu la yàlla wax mu artu ki nga xam ni mooy kayin waaye gis nga mbokk mi may déglu yàlla du imposé wu dalay artu rek après mu bàyyi la yàlla artu na kayin léegi nag kayin moo war a xool nan la war a def waaw yàlla daf koy bàyyee li nga xam ne nag mooy mooy mooy mooy décision boppam yàlla daal nee na ko moytul bàkkaar ak lay waaj a sànk ñu ne ñu kayin daal di tànn waaye mu tànn bëgg-bëggug bàkkaar mu tànn bëgg-bëggug mer mu tànn bëgg-bëggug tiis te bëgg-bëggug bàkkaar du la yóbbee fenn lu dul ci dee loolu la téere bu sell bi wax waaw say nafsu bëgg-bëggug nafsu doomu aadama bu ko bàkkaar jàppee day mel ni ku ëmb te bu wësine du jur lu dul dee loolu la téere bu sell bi wax noonu mu daal di nax rakk ji abel yóbbu ko ca tool ya dal ci kawam daal di ko rey waaw daal di rey rakk ja parce que pour moom jafe-jafe bi du moom xam nga doomu aadama yi ñun loolu mooy suñu problème ñun pour ñun duñu tooñ ñun dañoo baax amuñu benn problème amuñu benn jafe-jafe jafe-jafe yi ñi ci des la waaw ñi ci des la boo gisee yàlla nanguwul sama sarax abel moo tax lan moo tax mu saraxe ay ay ay nag ak ay xar munul woon saraxe ay légumes comme man daa waane waaw kon moom mooy problème bi au lieu que ma ne man lan moo tax ma saraxe ay légumes te nanguwuma saraxe béy wala xar wala nag ngir yàlla mën a bëgg ci man déedéet du ma du man problème bi du man abel la abel moo waroon def ni man comme ça yàlla du am beneen choix lu dul nangu suñuy sarax mel ni yàlla daa soxla sarax yooyu yàlla naal di ne abel kayin yàlla newoon na ko boo defee lu baax sa xar kanam dina leer maanaam boo defee lu baax li ko yàlla bëgg a wax mooy boo defee sarax bu mel ni bu kayin sa xar kanam dina leer saraxu kayin lan la woon ay mala la ñu ñu rendi deret tuuru dinaa ci dellu siwaat mbokk yi waaye kayin bàyyi na euh, fiiraange wala kañaan dugg ci biir dundam waaw mu rey rakka ja tey jii nag fiiraange boobu ak kañaan boobu mu ngi def ay musiba ci réew mi nit ñaa ngi ci ba léegi amaana ñu ci bëri duñu la yóbbu ci àll bi rey la parce que du ne dañoo ragal yàlla de déedéet tàngaayu prison la ñu ragal moo tax duñu la rey waaye bu bu ñu ne woon tey Sénégal amatul prison di nga gis ñuy rey doomu aadama yi comme c'est pas possible parce que ragal ñu yàlla tàngaayu prison la ñu ragal moo tax duñu la rey mais am na neneen nu ñu lay reyee ndax seen fiir ak seen kañaan la dem di la waxal lu dul dëgg nga gis nit am loo amut nga iñaane ko loolu fiir dugg la ngay wër ne ah kii kii xam naa day jaay yàmbaa rek alal bi mu am ni loolu yàmbaa rek moo koy def waaw non kii xam naa dafa am sëriñ bu baax rek maanaam waa ji daal amul benn mérite yow sa kañaan ak sa fiiraange tax na dindi nga lépp loo xam ne mérite la ci waa ji bu waa ji amee rek soit day jaay dorog wala dafa am sëriñ bu baax wala dafa am benn benn benn benn jongama bu koy jox wala dafa am benn paa bu koy jox mais moom amul benn mérite noonu la ñu nekk di reye doomu aadama yi ci àll bi bu dee nag loolu mooy sa problème bu dee loolooy sa jafe-jafe kaay ma jox la saafara si kaay ma jox la saafara si bul xoolati ci saraxu kenn jëmale ci yàlla ndaxte léegi yàlla maasale na sarax yi mu doon benn benn sarax kese la yow daal sukkandiku ci rek yàlla daal di ko nangu nga sa xar kanam daal di leer sarax boobu mooy sarax bi yàlla joxe moom ci boppam xam nga fii kayin dafa andi sarax abel andi sarax yàlla nee na léegi bu leen andeeti dara sarax bi gën ci sarax yi man maa koy andi mooy Seydina Isaa Yeesu Krista yow nangul rek ca nga bokk te comme man maa joxe sarax bi kon dinaa ko bëgg dinaa ci bëgg te su ma ci bëggee yow mi ko nangu di nga bëgg sa xar kanam daal di leer jeex na dootoo méngale sa bopp ak kenn ndaxte sarax bi benn la jébbalul ci Seydina Isaa Yeesu Krista bàyyee ko sa dund yàlla nangu sa sarax nga daal di am mbégte sa xar kanam daal di leer loolu la téere bu sell bi wax waaw kon yow mbokk mi nga xam ne yaa may déglu boo defee loolu di nga gis liggéey bu am solo bi nga xam ne Seydina Isa daf koy liggéey ci sa biir dund ba dootoo dootoo am benn yëg-yëgu ne dangaa tuuti wala dañ laa xañ loo waroon a am ndax da ngay gis mbëggeel bu mag bi yàlla am ci yow ba jébbale Seydina Isa Yeesu Krista ngir yow nga mën a am sarax su neex yàlla te bu yàlla bëggee ci sa sarax moom da lay toppatoo bu yàlla bëggee ci sa sarax day liggéey ci sa biir dund ba ka lépp lu ciy kañaan lépp lu ciy soxor danga koy dindi tegee ko fële loolu la téere bu sell bi wax moo tax taalibe Seydina Isaa tigi bi day jàng kàddug yàlla mu dégg yàlla di wax ci bataaxal boobu ñu tibbee Timote 1 Timote bataaxal bu njëkk bi ñu tibbee Timote saar juróom benn aaya juróom benn ba juróom ñett muy wax ni doylukat ci jaamu yàlla la bokk ndaxte biir na ni bi ñuy ñëw andiwuñu dara te bu ñuy dem duñu yóbbu dara kon bu ñu amee koddaay lu ñu lekk ak fu ñu tëdd cant ak ngërëm ñaan na yàlla kon yow mbokk bi maa ngi lay gërëm di la sant di ñaan rek yàlla may la nga xool sa xol bu baax mën a gis say jëf ak say jëfin ba jël lépp jébbal ko ki nga xam ne mooy Seydina Isa Yeesu Krista mu dugg ci sa biir xol liggéey ci liggéey yu am solo yoo xam ne day tax yàlla bëgg ci yow te di la barkeel saa su ne kon na la yàlla barkeel na yàlla wàccee ngëneelam yi ci sa biir dund wàccee ko ci réew mi nga xam ne ci la ñu nekk boo amee ay laaj boo amee bëggee gën a gëstu mbir mi waxtaan bi mu gën a xóot ñu ngi lay ñaan nga woote ci suñuy numéro téléphone bu boobaa dina am koo jot bu soobee yàlla te kooku dina waxtaan ak yow dinañ la mën a gindi dinañ la mën a tette ba yàlla mën laa barkeel kon jàmm ak jàmm ba beneen jërëjëf
mbokki déglukat yi fii la ñuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu borom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35.
الرب